dañoo sonn amuñu douche amuñu amuñu lamp amuñu sécurité foofu lëndëm na dañuy jaay ba guddi ay bandi ay agresseur dañuy agressé guddi na ak njaboot moo ngi taxaw seetlu mooy euh, état bi dafa teg ay politique de gratuité euh, politique yooyu commencé di naxasal structure sanitaire yi PNA tey euh, moo ci gën a moo ci gën a sonn waaw parce que moo ci gën a sonn parce que treize milliards lañu état bi yoreel waaw 13 milliards 13 milliards buñ ko fayul PNA mun na xëy garab yi nga xam ne ñu ngi ko doon joxe ci structure sanitaire yi dootuñu ko mën a jëndati waaw léegi li ñuy laaj mooy état bi na jël responsabilité am mu fay suñu 13 milliards waaw parce que PNA euh, mu ngi liggéey guddeeg bëccëg mais lu ñu liggéey état bi avec ses politiques de gratuité sans accompagnement war nañoo mën a rembourser ñu mun a continuer normalement suñu liggéey. tey di déclarer suñuy doléance ci arriéré de salaire ci ay ñeenti fan yoo xam ne quatre mois yoo xam ne fayekuñu salaire ak ay congé ak ay discrimination moo tax ñu ngi alerter directeur directeur du port autorité portière yi ak direction du direction du BMOP ñëpp xamal leen ñu ngi ci ay jafe-jafe yoo xam ne depuis sept ans ñu ngi ci ay problème moo tax ñu ngi ñaan ñëpp daal ñu jàpp ci pour ñu problème yi réglé wu su réglé nag dinañ dem à l' étape supérieure mooy def marche loolu lañ la xam ne noonu amoon loo xam ne dinañ ko wax. dañu ñëw ci euh, euh, ci ci premier mai bi euh, ngir wane suñuy revendication suñu revendication nag bari na bari waay boo xam ne ni mënuñu wax lépp fii dañuy tënk rek ci tënk ku nekk xam ne ni métier couture ci Sénégal nekk na métier mu am solo bokk na ci li nga xam ne ni moom mooy doxal Sénégal. su ko defee nag moo ñu gis ci ay jafe-jafe yu bari yoo xam ne ni euh, dañoo war a jóg ñun tailleur yëpp àndandoo nekk benn pour xeex loolu fexe ba jafe ji nga xam ne mi ngi mi ngi dugg ci métier ku tailleur yi ñu fexe ba jafe-jafe yooyu ñu lijjanti ko jafe-jafe bi ci jëkk mooy gis nañu ne fëgg jaay bi envahir na marché sénégalais ba nga xam ne nii képp doon ñawloo pantalon ak chemise ak costume léegi ñawatoo da ngay dem jënd fëgg jaay 1000 francs dem fay fay tailleur bi 200 francs mu defar la retouche donc tailleur yooyu ñëpp kenn liggéeyatul euh, chinois yi importation bi nga xam ne commerçant ñu ngi koy def au Chine euh, euh, def ñu doon def broderie cornelle broderie euh, grofil ñëpp dem nañu en chômage kenn liggéeyatul ndax jafe yooyu noonu léegi nag beneen dolli ko ci boo xam ne moo gën a garaaw mooy président Macky Sall dafa bëgg andi chinois yi fii ci Diamniadio jox leen ay ay xam ne nii dañuy def confection suñ ko defee nag mu gën a tee rey ñi nga xam ne nii mooy tailleur yi su ko defee loolu lañ bëgg a wax Macky président Macky Sall ne ñun d'accord ak moom gis euh, bokkuñu ak gis-gis ci côté boobu dañoo bëggoon moo woo ñu waxtaan ñu euh, mënuñoo wax ne d'accord ñu ci waaye nañ ko wax ay solution yoo xam ne su ko defee dina dina dina gën ci sénégalais tey jii dafa jàpp ne bu indee chinois yi dina créer cent emploi na xam ne bu créer cent emploi dina mettre mille euh, travailleurs en chômage loolu moom il faut que mu xam ko loolu nag pour ba ñu àgg foofu il faut que président Macky Sall digg ñu ñu wax ak moom ñu jox ko ay solution yoo xam ne suñ ci àggee incha allah mooy gën ci sénégalais yëpp